voilà salaamaaleykum euh, chers internautes ak yéen ñi nga xamante ni yéen taamul seetaan li nga xamante ni moom mooy Rewmi TV daleen ak euh, moo gën a fës ci euh, biir réew mi ak tamit bitim réew ni ñu ko defee saa su nekk rek ci semaine bi ñuy xool li nga xamante ni moom moo gën a fës ci xibaar yi ñu daal di koy waxtaane fii ci suñu plateau du ci ànd saa su nekk ki nga xamante ni moom mooy sama chroniqueur tey nag thème yi nga xamante indi andi nañ ko mooy coow li nga xamante ni moom moo lëmbee génne a Sénégal ak li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu pauvreté bi ñuy wax ne jamono ji ah, biir yooyu ak enquête nga xamante ni ñi di ANSD ah, joxe nañ ko waaye tamit dinañ wax ci leneen jëmle yi nga xamante ni ah, woon recruter ba wax ne fa am diplôme yoo xamante daal nañ ko déceler ci biir réew mi yooyu nekk euh, thèmes yi nga xamante ni ak yéen yoo xamante ni ko si toftal euh, ngir waxtaanee ko si seen émission actu bi réew mi mais comme ni ñu ko defee saa su nekk rek damay daal di bàyyi euh, sama chroniqueur mu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan saa su nekk fii ci réew mi TV monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay asalaamaaleykum. Mm-hmm. Mor maa ngi nuyu internautes yëpp ak waa réew mi TV. di dellu nag di am mbégte ñuy dellu si waat ci li nga xamee ne rek na wax noonu nga ko waxee. moo di actualité bi nga xamee ne moo lëmbale euh, réew mi ndaxte euh, fi ñu toll nii euh, fi réew mi toll li nga xamee ne rek moo ko moom lay wax moo di que damay wax ki nga xamee ni rek mooy kilifa réew mi mooy borom réew mi ma ne ko ah not baa ngi bugg a sale na bàyyi bëgg sale yooyu yëpp nañ ci ñëwaat mais laataa ñoo dugg ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi dañuy commencé ak ni ñu ko defee saa su nekk rek ak la une de Rewmi quotidien euh, trafic de passeport diplomatique euh, l'immunité n'est pas l'impunité euh, Kilifeu Simon et Thier en prison recrutement de 5000 enseignants des faux diplômes décelés toujours à la une de Rewmi quotidien jalousie l'étudiant tabasse l'amant de son ex ignoré par sa belle-sœur il lui des euh, coups de euh, bâton euh, toujours même dans le dans le journal Rewmi Quotidien Yewwi Askan Wi c'est un mot d'ordre politique communiste Rewmi Sport qui titre ça une Ligue des champions Liverpool renverse l'AC Milan Paris tenu en échec le Real arrache la victoire match fou entre Manchester City et Leipzig CAN Volleyball les Lions déjà éliminés après avoir accédé à la Ligue GFC veut euh, titiller la LDC loolu moo nekk li nga xamante ni moom moo gën a fës ci réew mi euh, quotidien donc euh, père la ngay def ci li nga xamante ni moom mooy à la une de réew mi quotidien ci trafic de sport de passeport diplomatique l'immunité n'est pas l'impunité kilifa Simon Etière en prison nga joxe sa xalaat ci titre boobu ñaar di xuus dugg ci li nga xamante ni moom mooy coowal passeport yi ci biir réew mi waaw xam nga Euh, bi may euh, ubbi sama waxtaan maa ngi wax euh, borom réew mi ne ko note bi sale na ndaxte boo xoolee toujours rek dafay am ci camp ay nit yoo xamee ne dañu yaakaar ne rek que ne ñoom dañu nekk au-dessus des lois immunité du impunité kooku suñ ko waxee moo di que ni gis nañ fi ay député lever leen seen immunité ñu ko dindi dinañ ko dindi coow ne mel ni tulleeg màlle ñu jóg nag jël réew mi am kuñ ko dénk mu daal di jël nag euh, kaam teg ko ak parteem teg ko dafa ruslu koo xamee ni peuple bi ci boppam moo la jël daldi la indil te xam nga yàlla deful dara au hasard yow askan bi daal toog daal la fal ne la yow sur le plan moral yow yaay dem toogal ñu assemblée pour dénga di ñu euh, défendre suñu intérêt ngay jóg di di damer le pion le peuple di jaar ci suuf di trahir le peuple dégg nga di leen jam paaka ci diggu gannaaw ñu demati aussi dégg nga parce que gis nga ñaari population yi ñu ki ñu ne kilifa ak euh, Simon dañu nekk ñoo xamee ne ay objecteurs de conscience lañ de des gens yoo xamee ne de euh, dañu nekk royal yanamar li ngeen di def baaxul ay kii yu mel noonu ñoom ci seen bopp ñu daal di taxaw daal di ne ñoom dañu set wecc ñu jékki-jékki di leen tudd ci yu mel nii bañ leen di tudd ci yu mel nii di leen ci photo di nga sax yanamar ci boppam dégg nga encore une fois ndaxte yanamar bu njëkk ba bi nga xamee ne nguur gi mu ngi nekk en place dañ leen daan wax naan yéen dégg nañu ne da ngeen nekk di ñu leen di jox ay subvention ngeen di kéeg yooyu ñuy toog di weddi dégg nga naan dañu am suñu ay société suñu ay entreprise ak kéeg yooyu te financement bii sax moo ko doon moo ko doon kii. mais mooy. man mun nañu sax di gis ne li nga xamante ne moom mooy moom mooy ay trafic day am ci yenn document administratif mais lu mel ne passeport diplomatique te nga xamante ne mooy a toog 2012 euh, li mu waxoon mooy dinañ saytuwaat naka la ñuy joxee li nga xamante ne mooy passeport diplomatique parce que gisoon nañ ne euh, ñi fi nekkoon ci nguur googu même fekkee sax ñun demee demee nañ ko woon mais daa joxe ay passeport ñoo xamante ne dañ naan jox nañ ko kilifa diina yi jox nañ ko ñii jox nañ ko ñële mais Macky Sall waxoon ne dañ koy changé ba sax dañ koy numériser boo xamante ne day day protégé wu mais ñu gis ne ay Samba booy ñu la ñuy jox ñoo xamante ne dañ naan ñoom ce sont des activistes ce sont des personnes dignes ñoom ñooy def trafic nekkul sax passeport normal bi ñuy wax nii mais passeport diplomatique bi nga xamante ni nekkul n'importe qui moo a am est-ce que nekkul nekk nii euh, ñi nekk ci ci nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée juste juste euh, daa am benn benn façade bu ñu créé si kanam nit ñu nii rek parce que député lañ mais dafa am loo xamante ni. Euh, kaara yooyu ñu am muy député boobu wala nga nekk activiste dafa am lu lay permettre ngir mën a dóor say diil suuf mbir mi du question wu activisme mbir mi question wu moral la mbir mi question wu ngor la mbir mi question wu respecte peuple sénégalais la peuple sénégalais bi dafa commencé ci njiitu réew mi ndaxte njiitu réew mi su fekkee ne moom ci boppam ba mu ne salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam mu ne am naa dossier yoo xamee ne dama leen jël teg ci suma kudd ci suuf booba la xam ne il faut que mu am justice à deux boobu la xam ne dina am ñoo xamee ne dañ naan fii laa bokk ci yax bi laa bokk fii laa bokk ci euh, race bii laa bokk kooku moom la ñuy wax mafia d'état mafia d'état boobu moo indi lii ba pare nag di ko def au détriment du peuple peuple bi ci boppam ñoom ñooy trinqué toujours peuple bi ci boppam ñooy trinqué ndaxte mënoo toog ñu daal di la jël ne la ndaw euh, réew mi E ñu jël la ci pencum réew mi ñu indi la teg la fa nga daal di jëkkati dégg nga di jël di trafiquer ay passeport diplomatique te gis nga passeport diplomatique yi dafa am ñaari façon dafa am passeport diplomatique ak passeport de service yi il faut que ñu leeral loolu gis nga ñi nga xamee ne ñoo war a lool euh, passeport diplomatique nga xamee ne dañuy am représentation euh, sur le plan euh, international ak yéegu mel noonu ak réew mi ak yu mel noonu bokkul ak ni nga xamee ne passeport de service yi nga xamee ne mun nga dajeeg benn chinois mu wan la passeport de service parce que dafay nekk ci opérateur économique yi ak ci ni nga xamee ne loolu la ñuy joxe homme d'affaires yi ñu daal di yëkkati nag passeport yooyu di leen ko jox ci biir yooyu nag mooy indi ak euh, li nga xamee ne prérogative yi nga xamee ne yow ci sa bopp parce que député yi ñoom li ñu doon def c'était très simple ñoom doublement la ñu euh, filouté état bi ndaxte da ngay dégg ñu wax la ne la ba ñu demee defi ji ay perquisition fekk nañ fa ay euh, imprimé euh, certificat de mariage yow au moment où ñuy wax ne suñu état civil bi dafa poser ay problème pour que ñu daal di mën a répertorier xale yi juddu dégg nga ñu mu daal di am ñoo xamee ne ñu ngi sucré wu dégg pour rek dégg nga di mun a ci ay mbirum alal dégg jaay seen ngor seen dignité fàtte seen njaboot ba pare ñu bugg a toog dégg nga bés bu ñu leen waree yëkkati yóbbu leen ci kanamu yoon foofu nag assemblée nationale ak njiitu réew mi foofu lay impliqué foofu la ñuy toog di wax ne man mii maa teg sama loxo ci yenn dossiers yi euh, man mii bëgguma sama ay nit ñu leen koy def bu boobaa nag dama naan la note est très si loolu mën nañu mën nañu comprendre mais est-ce que nekkul Macky fi mu nekk nii danaan ku ma neexal feccal ma defal ma lu ma neex waaye ma samay maam taggal ma samay lépp ma làkk la képp koo xamante ne danga may danga may danga may dóori xeer wala pansaay nga kii ma ma làbbay la comme ni koy saa su ne parce que gis nañ ne activiste yi Macky Sall chaque fois lu mu def gars yi saa si xeer ñoom fi mu nekk ñoom lañ attaqué te am na ay ay député yu tudd ci biir mbir mi. ba léegi woowu ñu leen dañoo nañu yëkkati seen immunité parlementaire yëkkati wuñ ko euh, bu gazee def na fi lu mel coow la kenn déggatu ko ñu dégg si ay ay député yu ñu wax ne laal nañ ci wàllu passeport yi ba léegi wooguñu leen déglu leen. donc est-ce que nekk nii euh, lii demul ba ba ba lañ naan dictature boo xamante ni moom moom moo am ci réew mi parce que euh, dañuy gis ne à chaque fois Macky Sall day gën di confirmer ne ku ànd ak man ma làq la ku àndul ak man ma duma la. du loolu. loolu procédure yi ñoo benn. ndaxte euh, député boo xamee ne yow da nga nekk da nga def benn délit mm-hmm. dafa am procédure boo xamee ne procureur moo koy jël demande ko ak yeeg yooyu mu am fu mu war a jaar. mais am na am na député bu defoon defoon dañoo dañoo accéléré mbir mi te ñii ci ñoom lañ bokk. mais déglu ma loolu ba ñu defee député bi fa defoon loolu ñu daal di accéléré mbir mi bii nii ñu taxaw naan euh, déglu nañ leen dégg nga pro ba tey. procureur déggagoo ñu ne autosaisir nag pour daal di woo assemblée li def loolu nag problème bi foofu la nekk mais ñii nga xamee ne ay activiste lañ ñoom ñoo waroon a gën a set député yii ndaxte lii di député yi di def ñoom moom la ñuy xeex ba pare fekk leen ci kon nag ñaar ñii dañu nekk ci disposition yoo xamee ne duñ leen baal dara bu fekkee ne li ñu def li ñu leen di jiiñ ñoo ko def. léegi ñi si impliqué nag ñoom léegi dañuy bàyyi mu seet noonu mooy député dañuy xaar ay ay procureur wax te procureur président moom mooy mooy. on est obligé di xaar procureur wax pour ñu lever seen immunité diplomatique. léegi léegi procureur bu président Macky Sall tegee loxoom ci ko bopp bi nag. président Macky Sall bu tegee loxoom foofu. président Macky Sall li ko fi dese bareetul. Hmm. day bareetul léegi ñu bàyyi suñu suñu passeport yi gën a important suñu ma ne li ko fi desee bareetul hmm. te parce que léegi li ñu mën a wax rek mooy hmm. euh, du mu ngi gis hmm. mu ngi gis ne ay mbokkam ak ay euh, mbokkam li may wax mbokkam moo ñi mu bokkal parti ñi nga xamee ne ñoom moo leen fal ñi nga xamee ne ñooy député Macky Sall parce que assemblée nationale da ngay gis les députés du peuple et les députés du président de la république comme ci bokk bi lañ nekk dina am benn bés mu jeex bés buy jeex nag boobu la ñuy xool di xaar bés boobu ndaxte Sénégal dara yàggatul dara yàggatul kon xam naa dañuy daal di tëj boobu sujet xam naa damay mujj sax mujj nekk député Macky ngir mën a am ci yenn privilège ndax li lay dese bare de 2022 moom bu wàccee tey nga jom ah. waaw soxlawul ngay dugg ci moom di def dara. waaw voilà donc dañuy dëkk ci na fànn rek muy li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu euh, pauvreté bi ci biir dëkk bi euh, ANSD ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy organisation mondiale daal di euh, waa ONU génne li nga xamante ni moom mooy benn enquête ne fi nga xamante ni mooy Sénégal ak yenn dëkk Afrique yi li nga xamante ni moom mooy taux de pauvreté bi dafay yokk yokk yokk bu baax a baax a baax a baax donc ñu gis ne fi mu nekk nii ndóol gi bëy na ndaw ñi amuñu amuñu xëy li nga xamante ni moom mooy yenn. seuil de pauvreté bi di gën a yokk donc yow ban jàngal nga si gis ba nga dekkee dekk ñu ne Afrique ba tudd Sénégal ne bokk na si dëkk yi nga xam nekk nii pauvreté bi dafa yokk baax baax a a baax a xam nga loolu su ko euh, organisation internationale yi buñ ko waxee dafay nekk loo xamee ne du du ne lu ne guléet ndaxte fi mu nekk nii euh, euh, li nga xamee ne moom moo moom moo wóor. moo di que ni euh, menace su famine ak ñi nga xamee ne dañuy ndékki añ te duñu reer ak ñi nga xamee ne dañuy xëy suba kër yi nga xamee ne dañuy xëy suba ku ci nekk di débrouiller mburook ndambe boo dem lijjanti ko wala tey aw ma ndékki dégg nga ak jafe-jafe yi nga xamee ne moo taxaw dama bëgg wax ne dama bëgg wax ne Macky ma doon tax sama kii bi noonu ma naan ko Macky Sall gis nga ñii nga nekkal nii ne leen bu ñu seet lu la neex ñu bugg a wax lu leen neex gis nga ku ministre boobu doon wax noonu ot boobu ah, doon wax noonu duma ko wax sax ne ko dama ko naan d'abord da ngay jóg nga dem ca Fuuta ba nga jóge mm. boo demee ba foofu di fa gis ñoo xamee ne tey ndikkiwuñu may ma rek may ma rek tuuti mm. beneen mbir mi mooy nekk almaañ Allemagne boobu nga xamee ne fa la jógee fa la jàngee fa lañ ko jëlee defe naa sax moom ci yooyu euh, moom foofu noonu dafa am li nga xamee ne moom la ñu tuddee le quart monde les SDF les gens qui n'ont rien les gens qui vivent de famine yoo xamee ne dañuy dajeek immigré mooy yëkkati lekk jox leen. mais man moom mooy moom moom moo nekk ministre de l'économie du euh, plan coopération internationale moom mu dem ba yëkkati ay baat nde loolu ñuy wax naan ay rapport yu wax ne Sénégal dafa pauvreté dafa yokk moom nee loolu amul nekkul donc nan la mën a comprendre parce que ONU génn wax waa waa waa ANSD ñoom ñoo yor wàllu démographie génn wax ne pauvreté dafa yokk Sénégal moom mu taxaw weddi ko en tant que ministre bi yor wàllu économie ndax euh, juste moom ay chiffres boppam la yor wala boog dafa am ñi xam ne ñoo koy ñoo ko joxul bon bon bonne information yi. ma ne buñ ko joxee bu bu fekkee ne dafa dem bay taxaw di wax ne dañ ko jox bonne information na démission na génn wàcc. Mm. ndaxte fi ñu toll nii li nga xamee ne moom mooy euh, li wér moo di gën ne yow boo nekkee ministre yore koom-koomu réew mi nga gis ne pandemi bi conséquence su pandémie bi nga gis ne fi ñu toll nii relance économique bi mënuñu euh, la la euh, entreprise yi ñu ngi à genoux entreprise yi ñu ngi au bord de la faillite nga gis ni ñi nga xamee ne dañ daan añ di reer balaa ñuy añ dafay métti man daf may fàttali rek keroog ba Abdou Diouf di wax naan ma jënd kafe juróomi dërëm loolu masul am Sénégal te fekk booba temps ay dose lañ daan jël dénga benn dose ngay naan pour mun a fexe ba daal di am loo euh, lu dugg sa biir alors li may bëgg a wax rek mooy dañuy wax toujours mais du ngeen déglu ndaxte Euh, Macky Sall soo ñëwee taxaw ne ko troisième mandat amuloo droit def ko mu dàq la boo ñëwee ne ko troisième mandat am nga droit def ko ñu gën la gonfler soo ñëwee taxaw ne ko fi mu nekk nii yow yaa ngi tombeek pandemi bi yow yaa ngi tombeek ñu xiif damay wax ne monsieur Hott da ngay ñëw ba Grand Dakar di nga gis ñoo xamee ne famine bi mu ngi leen di rey. te loolu ci boppam ah. am na mission yu ko defal loolu ma ne du loolu du question chargé de mission Sénégal la dëkk Fuuta Géle la jóge mburoog bër mu ngi ko mu ngi ko xamee fële Allemagne fii ak Ndakaaru oto bu huit V8 euh, nu mu tuddati 4-4 euh, 4-4 v ak yu mel noonu wala nekk ci ci donkaasi gi kii ak yu mel noonu dégg nga daa di ne fii ma nekk nii Macky Sall la ma ko jox fu mu wax fu mu xool falaay xool fu mu jàll fa xool loolu la la fi def loolu la fi def waaye euh, li euh, li li ñuy gis lu leer la te ñun ñi man maa ngi nii gis nga de suite dama set wet yëpp maa ngi ko sol kii mais mais à peine su fekkee ne diwaan maa ngi mun a lekk mm-hmm. xiif boobu ñuy wax noonu man mii mun naa ko incarner parce que je sais que ni euh, looy def da nga koy commencer ci sa bopp mm-hmm. il m'arrive des fois yoo xamee ne cere meew laay dóor te cere meew bi du ko gis. mais ci wàllu kii euh, yow lan nga yaakaar fi nekk nii bu ko defee li nga xamante ne moom mooy pauvreté mënuñu koo dindi ci Afrique parce dëkk yëpp ñoo ñoom ñoo seen taux de yokk parce li nga xamante ne moom mooy Covid bi am lu mu yàq lu bëri bëri mais fii Sénégal je pense que affaire bi da dafa accenté wu ba li nga xamante ni euh, yenn euh, susu di sa commencé bëri parce que nit ki nga dem benn instant son jàpp nga def yenn mais yow bala yaakaar ne bi ñu ko defee au li nga xamante ni moom mooy euh, jàppale nit ñi ci benn saako ceeb benn pot meew affaire ñu def ko loo xamante ni pauvreté bi nit même bu fekkee pauvreté bi c'est c'est précaire au moins mu mën a mu mën a am joie de vivre tuuti. ma ne affaire pauvreté Afrique du lu bees. du loo xamee ne lu ñu kile la li nga xamee ne dëkk boo xamee ne moo euh, Corée du Sud ñoo bokkoon ay demin mm-hmm. léegi Corée du Sud mooy indi fii ay euh, nu mu tuddati euh, li ni ni nga koy waxee téléphone téléphone Samsung yeeg yu mel noonu ak ay oto Kia yi ngay gis nii yooyu yëpp ñu koy indi te ñun ba tey jii ñu ngi taxaw Mamadou Madi dégg nga pauvreté aide bi dégg nga det beeg edd yu mel noonu yooyu fa la ñu toll mm. dëkk boo xamee ne amul euh, brevet d'invention bëkk boo xamee ne amul euh, ay usine de transformation amul ay nit yoo xamee ne dañuy xiif la làmb seen poos lekk ko euh, wut am lu ñu lekk mais pauvreté bi bu bu taxawee ci may ma comme li nga doon wax rek defal ma may ma ay jën dégg nga te yow nappi woo te ce qui est sûr c'est boo taxawee dégg nga dañu daal di bokk ci ñi privilège yi nga ñi privilégié yi yow mun nga toog sa biir kër ndékkee sa kafe yëy sa goro daal di ne pauvreté amul Sénégal mm. ku la Abdou Diouf waxoon rek Sénégal amul dose vingt cinq yu ñu jaay ci boutique yi voilà donc mu nekk loo xamante ne je pense que euh, ça mérite une réflexion pour ñu xoolaat euh, naka lañ mën def ba mën a gën a yëkkati li nga xamante ni moom mooy niveau de vie bu Sénégal parce que fi mu nekk nii c'est dur ak li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi ñenn ñu bëri ñàkk nañ seen liggéey ak yu ni bëri mel mais mel ni am na benn coow boo xamante Sénégal am na ko muy euh, lu jëm ci ay ndaw yoo xamante ni dañ leen doon wax nañ di recruter ci wàllu enseignement bi ñu waxoon 5000 enseignants yi jël lu toll ci plus de dossier jot na ay ay recrutement yu ci am yoo xamante ni ay faux document ay faux diplôme ay ñenn ñoo xamante ne sax ñoom déposé wu ñëw parce que am na ki ko ne ko ne ko presse la mi ngi am ci wàllu enseignement bi ñu leen ñii di wax ne dañ leen imposé wàllu vaccin euh, si wàllu enseignement jamono jii ñu wax d' abord ci am na problème bu ci am ci ay faux diplôme ay ñenn ñoo xamante ne mosu ñoo déposé ñu ñu loolu du fi guléet Sénégal ndaxte euh, période bi nga xamee ne ci la ñu doon jël volontaires yi période yooyu man gis naa benn koo xamee ne daf doon jaay caaf mosul dugg ecole ñu recruter ko dégg nga mu dem bay fayee ko cinquante mille yooyu. xanaa kon moom ci caaf lay jàngal ci classe xaw ma caaf lay jàngale xaw ma mais daal jàngul kiyul ñu jël la def ay faux diplôme genn wàll gi yëpp ngay gis ci administration bi ay seen diplôme yi dañu foo ndaxte système mu Sénégal bi moo baaxul amul système d'équivalence amul système boo xamee ne dañuy jël di euh, comparer euh, li nga xamee ne moo di diplôme yi dégg nga amul tableau de correspondance des diplômes si bien que da ngay xëy benn suba ndégg ñu daal di ne la maintenant dañu libéraliser l'enseignement post-universitaire supérieur privé mun nga dem ci école privée bu la neex ñu defaral la benn benn document mm. document boobu ñu daal di ko dem reprendre ko ak technologie euh, informatique yeeg yu mel noonu boole ci rax ci dolli que ni dafa nekk ci li ma di wax ne du gulet du du gulet c'est parce que toujours même gis nga bag bi bu ñu koy def sa am na ñoo xamee ne dañ naan naka la ñuy jaaree à travers les mailles du filet naka la ñuy tricher triche boobu yëpp ñëwati na léegi fi ñu toll nii gis naa sax benn euh, directeur euh, de la formation mu ngi artu nit ñi daal di ne léegi les cent cinquante mille euh, dossiers yi ñu jot cinq mille kii mun ngeen def ay recours waaye ay yàlla dafa def sax que ne mu am xolu yërmande daal di ci dugal ne léegi ku la ku wóor ne diplôme bi nga wax wóor na diplôme ba wóor na bul def recours parce que soo defee recours buñ ko ca gisee dinañ la mën a pour poursuivre defe naa ne lool laa comprendre ci li nga xamee ne loolu la est que loolu la parce que man dama gis ne balaa ñu naan ay waxu 5000 euh, enseignants yu ñu recruter y des gens qui ont été formés fi nga xamante ne moom mooy moom mooy euh, fi ñu defee école normale bi nekk fii yaa des personnes yoo xam ne formé nañ leen ba noppi li ñuy xaar moom mooy euh, recrutement war ñu war ñu ñu yóbbu leen euh, euh, fi nga xam ne la ñu war jàngale yi wax wax c'est juste pour insérer seen ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi ci biir parti bi ñoo xamante ne ñaar ay APR rouge APR frustré les les les partisans de de première heure affaire yooyu est ce que ñooñu loolu ñu jéem la jënti fu ñu dugg moo war ñu lancé 5000 enseignants yi mais pour ñu am nombre bi c'est tout à fait facile bu ñu demee euh, fi nga xamante ne moom mooy Pastef euh, fa ñu dem euh, école normale dinañ ko a am tout à fait xam nga naka la tuddati administration bi di jël ay fonctionnaires dégg nga ak comme ni ko waxee école normale direct boo paree dañ lay jël amul sax da ngay ñëw ñu recruter la dañ la war a dugal directement nga nekk fonctionnaire mais Sénégal moo tëddee noonu. gis nga da nga wax ci sa ci sa kii bi Sénégal du ñu dem. Mhm. ndaxte da nga gis nga waajooju mu ngi lay wax ne ñu ngi lay wax ne la waaye si dafa toog demul fenn jokki-jékki ñu woo ko ne ci nga bokk. si dafa yàgg ñu lay jël même ba ci bag yi ñu lay jël. président su président jury yi daal di jël sa tur bind ko ca. nga jóge fa am bac loolu dafa nekk loo xamee ne dégg nga tricherie ak euh, maguy ak euh, ruumandaat dafa mos sa bokk ci mbirum euh, mbiru sénégalais li nga xamee ne nag moom moo kii moo di que ne ñun administration ci boppam lañ amatul dafa amoon bu jëkk ba nan ngay jóge processus bi ngay génnee école di ñëw ba nga xamee ne da ngay dem fonction publique ñu dugal la fonction publique léegi bu ñu la fa dugalee nga daal di toog ñu xëy suba woo la amoon na fi sax bu jëkk ba loo xamee ne yéen xamu leen ko moo di que ni soo ñëwee da nga daan bindu main d'œuvre main d'œuvre benn genre agence nationale pour l'emploi la soo defee boo génnee école da ngay ñëw ñu daal di répertorier xool la daal di jël sa ay kii da ngay xëy benn suba rek ñu daal di ne la am na liggéey bu am ONCAD wala am na liggéey bu am ci Sonadis yi am na liggéey bu am ci usine tel wala kii yu mel noonu ñu recruter la loolu amatul léegi fa moo am. ANPEJ la euh, euh, ANPEJ mooy lan. mooy agence nationale pour la promotion de l' emploi des jeunes. Euh, agence la promotion de l' emploi des euh, ba amul dëkk boo xamee ne dëkk boo xamee ne dafa am agence nationale pour l' emploi des jeunes. Mm. agence nationale pour lemploi moo am. Mm. mais agence nationale pour l' emploi des jeunes fu ñu ko defee rek xamal ne gaañi laaj nañ. Mm. parce que politique gu emploi ak jeunesse dafa nekk politique boo xamee ne dafay nekk politique spécifique boo xamee ne day ñëw tëdd ci politique bi nga xamee ne ci la ñuy wutee. emploi ci politique bi nga xamee ne dangay ngay perte sa emploi daal di am benn processus boo xamee ne da ngay reconvertir pour dugg dans le système économique ñu daal di jël ay dispositif yoo xamee ne dégg nga parce que chômeur bi mooy ki liggéey ba pare amatul liggéey demandeur d'emploi bi mooy ki nga xamee ne amul benn qualification amul benn kii boo xamee ne da nga ko war a jël dagal ko ay dispositif d'insertion sociale d'orientation et de qualification pour que mu daal di mun a dugg dans le tissu économique. donc si je comprends bien kon euh, on doit pas faire la promotion de l'emploi des jeunes mais on doit faire euh, benn politique de l'emploi des une politique de l'emploi des jeunes. parce que boo ñu ne la euh, fi mu nekk nii. yow yaa ngi may wax naan ma ANPEJ xaw ma. agent national pour l'emploi normalement normalement. jeune bu génn dans le système éducatif génn université nga am diplôme ñàkk am diplôme danga nga waree ñoo ñu bind la bu ñu la bindee xool sa niveau fan la xool yan kii la ñu laa dina la telle perspective mun nga ko am tel kii mun nga ko am orienté la mu am des inspecteurs placiers des gens yoo xamee ne dañu xam lan mooy le secteur tertiaire dañu xam le secteur primaire dañu xam li nga xamee ne moo di catégorie socio professionnelle yi nga xamee ne fa la ñu war a insérer jeunes yi yooyu yëpp dañ ko war a xam ak yan type de formation la ñu war a def pour adapter leen dans le système euh, de processus économique bi nga xamee ni Sénégal moom moo ko war a yóbbu vers son développement vers l'émergence bii ñuy wax ni da ngay jékki-jékki ñu naan émergence bi ñu récupérer ko politiquement Sénégal émergent Sénégal derrière le président émerger derrière le président ngay dégg te moom sax boo ko laajoon émergence bi dégg nga <laughs> day na fàtte ne sax ne moom moo fi bindoon c'est yoonu yokkute. <laughs> yoonu yokkute wala plan Sénégal émergent wala pays Sénégal comme ni ko nit ñi tooñe naan PSE mooy pays euh, euh, plan Sénégal endetté nu ñu ko a waxee je pense que euh, la ngay tàggatooyee benn kii ndaw rek boo xamante ni information booy tëjee rek ñu daal di tàggatoo ak ñi xamante ni sant jamono ji. waaw li may tàggatoo rek moo di que réew mi métti na ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe yoo xamee ni très franchement euh, da ngay xool ay nit yoo xamee ne dañuy ñëw nga gis leen amuñu lu ñu lekk ñu am soxla du ñu mun a euh, làmb seen poos faj ko ñu ngi ñaan yàlla rek pour que euh, lépp loo xamee ne Euh, état bi mu ngi ko mën a def pour rek dimbale jeunes yooyu ak politiciens yi li ñu mën a def parce que fi mu nekk nii jëlati nañu li nga xamee ne moo doon dimbale xale yi pour affaire liggéey bi dimbale xale yi pour que nga am liggéey dimbale pour que nga mën a napp ay jën léegi yooyu yëpp jël nañ ko nee nañu local yi local yi local yi yooyu nag dafa dañ ci dañ ci xaw a tàyyi ndaxte bu ñu jàppee benn affaire pandémie bi waxatuñ ci ñu ngi koy kii yooyu mu ngi dox waaye il faut que ñu daal di jéem a fexe nag am euh, li nga xamee ne rek moo di benn système voie boo xamee ne ñun ñëpp buñ ci duggee daañ ci mun a génn dégg nga pour que le Sénégal ak le Sénégalais suñu doom yi ñu daal di mun a nag épanouir dégg nga pour que ñu daal di mun a retrouver seen dignité ndaxte damay wax ñi nga xamee ne ñoom ñoo yore nguur gi ne leen il faut que ñu bàyyi xel que ni la bombe de la jeunesse mu ngi couver toujours et que nit koo xamee ne ton honneur est bafoué nit koo xamee ne amuloo benn alternative del moytu toujours dégg nga di def wala di indi ay problème mu passeport wala di indi ay problème mu nit yi di def nii wala ngay jël ay nit na ñii danga leen di def sous le coude bokkuñu ci ñi nga xamee ne war nañ leen yar ëllëg mun na indi musiba. nga tàggatoo waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm nag euh, ñi nga xamee ne du ngeen leen gis toujours dégg nga mooy suñu techniciens yi caméraman yi dégg nga ñoomin euh, moomu ak yi nga xamee ne moo di. Euh, nga mu ne. borom site bu bees bi borom site bu bees <laughs> ah, ak Maodo. dégg nga Ngom dégg nga xam naa ne mu nga ca biroom di ñu déglu wala mu ñëw sax tiim ñu di ñu déglu bu ko neexee. Uh-huh. waaw di wax rek ñoom moom ak ñoom ki ak. Uh, uh, Saa Touba Saa Touba Saa Touba nga nee la moom laay jóg moom laay uh, jóg nag dégg di leen wax rek maa ngi kontaan naa ci bësu tey bile. Hmm. ak ci li nga xamee ne moom la ñu reprendre actualité bi. dégg nga di wax aussi chauffeurs yi def leen ndànk. Hmm. ndaxte accident yi jógaat na. ak inondation yi dina jógaat taw bi ak eh, dérèglement climatique yi nañ ci def attention ndaxte yooyu yëpp boo déggee ma koy wax c'est parce que Sénégalu jàmm kese kese la ñuy wër waaye dafay fekk nag ñi nga xamee ne ñu jiite du ñu lu tëx di def une politique de laisser pourrir politique de laisser pourrir mooy li may wax la bombe de la jeunesse moo diggee ne pourri pourri pourri ba jékki-jékki rek mu daal di def boomerang benn xeer rek daal di ne tëf ci sa kanam nga naan fogoon naa te fekk c'était trop tard. fekk c'est trop tard je pense que du ñu àgg foofu euh, comme ni ko waxee rek dañuy jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ñoo ñuy tàmm di ñu seetaan ci li nga xamante ne mooy su ne yow laay bokkal plateau bi euh, monsieur nga xamante ne ñoom ñooy suñu techniciens yi nekk ci ginnaaw caméra euh, li nga xamante ne lañ jëm muy màggal gi wax nga ko nañ daal di daw ndànk dal ndànk comme ni ko sëñ bi waxee rek ci li nga xamante ne moom mooy contrôle ñu xool pneu yu xool lépp ngir mën a maytu li nga xamante ni mooy accident yi euh, di euh, jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu sitaan saa nekk rek euh, di leen wax ne daal fi mu nekk nii jamono safar lañ nekk di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp xéewal ngir ñu jekku màggal gi bu baax baax a baax a baax donc di leen jox di daje la semaine prochaine ci seen beneen numéro bu seen émission actu réew mi fii ci réew mi TV wooyu leen def seen abonnement fii ci réew mi TV jërë ngeen jëf